tooy te liñ ci mën a waxtaane bari na euh, mais ndeysaan yal na leen yàlla yërëm ci xare leen aljana euh, waaye Max <laughs> Max cey bombardier cey cey cey cey cey cey cey rëg rëg ah, doy na waa xam nga rëg rëg démb def na lu am solo ci làmb dëgg la parce que démb nag la dugg définitivement cour des grands. ci kaw gaañ yi yegg na mais man nag dama ne c'est la jeunesse face à l'expérience mais démb. Bombardier wone ne nag làmbam bu jeexul it mu nga ca cat la. dëgg la parce que démb kenn xàmmewu ko. waaw rek rek mi mu dajeel moo tax kenn xàmmeewu ko. am mbërga day jeex. waa xam nga doy na waar mais waxoon na boppam donte boroom jom la ndax mbër buy witti ne amatuma la muy prouver damay may loxo yi xale yi chance pour ñu yaatal géew bi ci kaw kon xam na ne làmb. danga def li nga war a def yépp waaye sport day favorise xale euh, kon moo lay wan ne buñ toppoon ci texte ak règlement heure bi fekkee na ñoom Balla Gaye 2 fekkee na ñoom Yékini mm-hmm. fekkee na ñoom Tyson ndax âge yu retraite mbër ci quarante cinq ans la ko docteur Alioune Sarr bàyyi sortant bàyyi woon mm-hmm. mais bi Gaston ñëwee jox ko avance waxtaan ak CNG bi fi ne ñu mujj ci yokk trois ans su ma jumul. muy quarante huit quarante huit ans. Mhm. kon buñ ne ci âge retraite mi ngi koy fóot nag. ndax même bu ñu jëmee saison. parce que il a 47 ans hein, et voilà. demi. voilà te bu ñu jëmee saison bële. Mhm. xalaat naa ne boo amul combat ci diggante bi te changé wuñ texte yi euh, pour mu bëriwaat xalaat naa ne. Euh, des textes yi moom mënatul changé mag. waaw ah, parce que 48 moom mais daal mais daal sport individuel moom xanaa kenn du ci dem 50 ans. Euh, gis nañ ne borom jom la. Mhm. ñeme na. te da koy jox àqam mais dafa daja xale boo xamante ne wax naa la ko raay barki démb tëgg ngeen tournoi ca mbuur mm-hmm. muy bëre franc nga ca woon rëg-rëg di bëre franc nga ci woon selemele ma nga ci woon bu dul làmb jax damay bañ a jóg mm-hmm. mais ci estatu mbuur bi ne ci biir ci ba boori garage municipal bi municipal bi fa lañ ko tëgg maa nga fa woon keroog bi bombardier ñëwee di bàkku rëg-rëg dafa bàyyi cumikaay li daw kar ko ne ko grand may ma chance mm-hmm. filmé naa ko. Mhm. bu dul bu dul ñoom ñoo ko tëggoon it muy làmb bu lig ci ko tëggoon. Mhm. lëg defe naa lig teg na fa benn tournoi. Mhm. te Sen TV defoon defoon fa plateau. boobu lig lig moo ko tëggoon. kon boobu la voilà. si je ne me trompe pas noonu keroog. yow yaa toog ci ci ci ci plateau. waaw rëg rëg dafa jóg dem car car bombardier. da ko grand may ma sens. Sidi ak télévision yëpp daw seen. kon keroog nga Gris Bordeaux waroon a def face to face am ak Balla Gaye. kon jeex na sama te te je crois que Balla Gaye keroog ñëwul. kon jeex na mais Gris ñëw na. kon moo lay won ne yàgg na am rêve ne. Mhm. fii Bombardier de mooy sama place. Mhm. mais jox na ko cër. mais Max. Mhm. rëg rëg nañu ko bàyyi xel. mbër la lépp mbër a ngi ci moom. mbër la te xalaat naa ne fépp bu yàlla defee jàpp fu mbër di àgg rek dina fa àgg. et parce que nag dama gisul. lu manqué ci moom ci ci ci ak mbër. mën naa xeex mën naa bëre. am na ngem bu bëgg na li muy def. te ki démb rek ci wàllu arts ci lañ ko jox benn kimino décoré ko. Mhm. def ko meilleur combattant. Mhm. kon kooku. mboolem te te loolu gars ñi ñu ngi koy soog a jox mbër muy takk ngemb. ñu ngi ko ko doog a jox ba pare mu nekk niveau international. mais mais ba pare nekk xale boo xamante ne nii léegi mën nañu wax ne euh, mbër yi nekk Sénégal moom ak Bombardier rek ñoo ci gën nekk professionnel. mais Paa la Diop da ma ci wax lu lu yéeme ne dama la fa ci ay combattant ak ñi doon seetaan si ne na ma man na junniy nit presque mhm. ku ñu sarral nga jóg ñeneen ñëw mais nee na li ko ci gën a marqué mooy gisu fa benn force de l'ordre mhm. te lépp ci discipline lay jeex ma ne ko nag arts martiaux yooyu ci discipline mhm. lay njëkk a yar bala nga doon bala nga doon combattant gisoo boo leen fekkee ci mbedd uh-huh. xamoo leen man nga leen di tooñ bu dee yar woo di leen tooñ di leen dépassé duñ la wax dara waaye boo demee ba sës nag bu ñu jëflanteeg yow nga xam ne ñii ndekete am na am na loo xamante ne nii moom la ñu ngembuwaale kon nag ndaanaan bu mel noonu. épiraay mhm. laaj nañu ndaanaan yi. mais tey rek fu mu jëm. fi mu jëm mooy euh, yaa ko wax léegi. boo yegsee cour des grands kay yegsi nga ci. am na ñu ne digganteem ak Lac de ñor na de. ñor na moog Balla Gaye. moog Balla moog Balla Gaye moog Tapha Gaye ñoo ñëpp mën naa bari ñoom. mais boo see may ñëw ci ma delluwaat ci qualité rëg-rëg Yaxya Jóob Yékini lañ laaj. Mhm. ma ne ko lan moo tax yëkkit Reug Reug lu ñu fi teg mu jël ko te ay génération boo wàccee ci suuf yebuñu woon tournoi bëre séeréer si mu ne ma mag waxal dëgg bi rek dañoo manqué ay mbër ndax mala la jëkk a ñëw sonal leen Reug Reug ñëw ak franc sonal leen ba mbëri wolof bi léegi dañ leen a yàpp di jël ay tournoi ci seen biir mais gis naa nag ay séeréer yoo xam ne ay ndaanaan ko ay ordinateur ay ngañ seen ñi ngi wane seen bopp ak ak ak Doudou Sané foofu it am nay champion mais Reug Reug daal li ma bëgg a wax mooy ndaanaan la boo xamante ne nii wane na boppam yegg si na ci kaw gaañ yi. yegg si na de Bombardier du n'importe qui ku moom dongo doon roi des arènes ñaari yoon ku ko daan yegg si nga ci kaw gaañ. ma ne ku ko fekk muy nelaw sax boo ko daanee daan nga mbër. mbër mënatu koo bañ moom rek. yegg si mbër mënatu koo bañ. pour dire vrai yegg si na ci kaw gaañ. mais di encourager parce que moom it am na mérite. parce que mbër la moo xam ne vraiment euh, li mu def ci làmb euh, am na solo jarul sax ñu ciy dellu si mais nag dafa am foo xam ne bu fa sa làmb tolloo war nga mën a gérer sa fin carrière nag génn pour mën a génni par la grande porte parce que aussi c'est important parce que yii xew yi ëllëg histoire daf koy waxtaanee tey dafa am solo te njàmbaar dafa bokk ci bu ëllëgee bu réew mi di waxtaan surtout génération yu bees yi war a ñëw future génération yi xam ne kat diw defoon ne fii lii ak lële loolu dafay baax parce que day neex loolu ci xol ñu ne diw day bëri na ba bàyyi benn yoon la daanu wala ñaari yoon donc génni par la grande porte aussi am na boo demee ba sentir ne ñi nga ko doon defandool tekki nañu seen gemb te yaa ngi commencé may xale yi chance ñu commencé ñoom it di euh, yéeg sa kaw li jaadu nag mooy nga jéem a xool nan ngay préparer pour génni par la grande porte. waa loolu nga wax message bu foor la xam naa dina ko bàyyi xel. mais li am solo rek mooy moom réussir na carrière ndax du hasard bi muy ñëw dëkk am combat mbuur dëkku làmb la waaye bi muy ñëw di am ay premier combat am taxutoon mbëri mbuur yëpp topp ko boobu ñu ngi topp ci tournoi ñi te ne ci napp yi di liggéey yi mhm. werante amu ci boobu dama daan jël ay mbëri caado ñu ànd ak moom ñu dem di ko jàppale ci contact ba mu mujj créé écurie mbuur mhm. tey mbuur ñaata écurie fa am bari na ñaata champion moo fi ne. te mhm. Yékini bi mu ñëwee Ndakaaru moom moom bokk écurie Ndakaaru donte Joal lay waree moom mu ne gëw ma loolu. guddi guddi guddi guddi mbuur tey tax na ay champion yu bëri làmb dekkiwaat mbuur kon moom moo lay wan ne carrière am allah te ndam lu ne indil na ko mbuur kooku nag sax mais bàyyil moom. non Max loolu nag. bu fekkee am nga ko ba def ko. waaw waaw dootoo ko mën a yàq nag. li ngay def. mooy nga rafetal ko ba bu ëllëgee. nga am honneur am wooy parce que mbuur bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan ci Souley Ndoye dañuy waxtaan ci Cheikh Mbaba man nañu waxtaan ci ñoom maama dégg ñi jaar ci diggante bi mais un lutteur de la valeur de Bombardier mën nañu wax ne mbuur mu ngi koy soog a am te gëm naa ne néew ma dootu ko am mais balaa koo amaat dina yàgg mais nag li jaadu mooy boo demee ba sentir ne tey lamb mu ngi lay won gannaaw euh, nga mën a préparer nag sa génni pour nag vraiment rafetal li nga xamante ni moom nga liggéeyoon loolu am na solo. dégg naa fa nga fi ma waxee. dégg foofu rek laa waxe nag waxeewu ma feneen. dégg naa la de fi ma mooy. Mhm. jom ji ci moom ak li mu wane. te drapeau gox lay gàddu. Mhm. su dee ba sentiratul boppam xalaat ne ay xale ngay bëre te pour nga am ci ndam yombatul. Mhm. mu génn ci grand porte. dëgg la ak lim fi def dégg naa la baax. jërëjëf xam naa ko xam. Euh, jërëjëf Max jërëjëf mbokk yi kon xam naa ne waxtaan wi buñ ko toppee Max nag xam nga buñ toppee Bombardier. Ah. Euh, ak ki nga xam ne mooy Reug Reug vraiment démb làmb ju neex la làmb ju mucc ayib démb aussi combat yi fa amoon yëpp neex na te yëpp àgg na ci jàmm mais Max. <laughs> <laughs> dégg naa la wax woo yem ci kongu. cey lundi wala <laughs> làmb yem. wallaay te da koo tënk sax nag. <laughs> ne ko fi ñu waxale premier premier jour. de la ak le donking Gaston euh, Mbeng waaw Gaston Mbeng mhm. euh, ci njiital doomam euh, Alaaji Makan muy bés boo xam ne nii vraiment bés bu mucc ayib la mais mag Max gis nga ñaari mbër yi barki démb rek ci face to face bi nga xamante ne nii moom la ñu def. wallaay euh, daanaka coow xaw na xaw na ci am. Mhm. ba ñu bëma xante ku nekk natt sa morom. dama bëggoon ñu ànd ak maam ci Sidi. dellu régi xool loolu jël temps yi nga xamante ne nii moo amoon keroog ci face to face bi bu ko defee ñu ànd ci ak maam Sidi dellu si waat ci plateau bi waxtaanee lundi le première janvier ci diggante.